bile canal mi ngi nekkee ci Touba Daaru naan fi garage yu Dakar bi njëkkoon a nekk jamono ji nag ñi nga xam ne daal ñoo nekkee fii di dund ay jafe-jafe xeet gu bon ak ndox mu salte jaxasoo ba tax na ñuy wax ci yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel te bi yóbbu leen ko. xeet bi fii nooy métti na trop mën nañoo indi ay feebar ak yooyu noonu. Ah, waaw métti na moom ndax jàngoro mën na cee jóge leneen mën na cee jóge. nget gi ñu nooy yooyu yëpp nga feebar lay joxe bu ñu xëyee suba ba ngoon daanaka tout la suur fi la ñuy bu nu xëyee ba jant bi so fi la waaw ah, di nooyi nget googu. ndax nawet beeg yooyu noonu ndox mi day ñëw ba si ñun ay laveur lan mais day ñëw ba suñu garage bi daal. Hmm. duñ am fenn fu ñu mën liggéey liggéeyee salte beeg yooyu noonu. muy jaaykat yi nga xam ne noo nekkee foofee wala sax raxaskatu oto yi ba ci sax ñi nga xam ne nag ñooy jaay lépp loo xam ne jëm na ci wàllu lekk ci lu ni mel jamono ji nag la ñuy xamle moo di. ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel waaye itam bi la kanaal mën naa andi musiba ndax xale yi dañ ciy foo ak ñi nga xam ne seen yaram neexul. bi bari naa. dëgg yàlla moom bari na ñoo xam dañuy dañ ciy tàbbi sax ay silmaxa yoo xam ne dañuy dox ba ba tàbbi ci biir. ibi taalibe yi dañ siy dugg barki Demba Ndiaye am na benn taalibe bu fi dugg nii. ñaaw na lool ndax léeg-léeg sax suñu mbokk silmaxa yeeg ak suñu mbokk yi nañu xam ne seen xel yi maanaam dafa xaw a manqué dañ ciy dugg ñun ñoo leen di eh, jàpp sax di leen kii ak di leen kar. mbir mu nu mel nag nit ñi xamal ne lu fi yàgg lool la waaye itam liggéey bii nga xam ne daal ñu ngi ko doon amal ci route nationale bi bokk na ci li nga xam ne moo leen gën a andil jafe-jafe ah, waaw yàgg na lool moom ay at ay at kay waaw mais nag melutoon nii bu njëkk lii après liggéeyaat bi moo ko def nii bu njëkk moom dafa yemoon ñu defar ko nii ub ko meluwoon nii nag mais mbalit yi ñuy jël di ko si sotte yii nii moo waral kii xeeñaay bi nii daal dañuy déranger sonal ñu daal ñu daal ku ñu jàppale leen bëgg daal. mel ni nag ñoom nag jamono kii seen borom muñukaay yi moo fees ñuy sàkku nag ci ñi nga xam ne nag ñu jiite bokk memel gi ngir ñu taxawu leen ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel